الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Hello everyone, uh, welcome to your program How to Learn English from Your Origin uh, dal leen programme biñ today, How to Learn English from Your Origin uh, naka ngay jàng anglais ci sa religion en tant que muslim Abdulit. jullit def bahamsa xam sa diine waaye nga ko ci jàng anglais euh, li mooy first lesson maanaam leçon bi nga xam ne moo njëkk mu ne welcome to your programme ana dal leen jàmm ci seen programme how to learn English from your religion naka ngay jànge anglais ci sa ci sa religion ci sa diine why we Muslims begin our faith with Bismillah. Why we Muslims begin our things with Bismillah. mu ne lu tax ñun jullit ñi ñuy tàmbali sunuy mbir ak bismillah why we Muslims lu tax ñun jullit ñi begin our things ñuy tàmbali sunuy mbir with bismillah ak bismillah lu tax ñun jullit ñi bu ñuy tàmbali dara ñuy wax bismillah bismillah li muy signifié mooy in the name of Allah in the name of Allah maanaam ci turu yàlla lu tax ñun jullit ñi ñuy def loolu mu ne we do it dañu koy def because it's sunna ndaxte sunna la we do it because it's a sunnah we do it because it's sunnah dañ koy def parce que sunnah la because moy parce que ndaxte it's sunnah. ana sunnah la Sunnah moy yonent bi da ko def motax kon ñu diko def and we seek the help of Allah mune ñun dañuy sakku ndimbalal yàlla the help of Allah mooy ndimbalal yàlla and blessings through the name of Allah ak barke jaare ko nag ci turu yàlla maanaam dafa bëgg a wax ne ñun dañuy sàkku ndimbal di sàkku barke loolu moo tax ñuy wax bismillah moo tax mu ne we do it because it's sunna dañ koy def parce que sunna la n we seek the help of Allah tey dañuy sàkku ndimbalal yàlla and blessings blessings mooy blessing mooy barke mooy barke dégg nga and blessings through the name of Allah jaare ko nag ci turu yàlla mu ne the prophet Muhammad peace be upon him said the prophet Muhammad nee na yàlla Muhammad peace be upon him mooy da ngaa julli ci moom sallallahu alayhi wa sallam said sedd mooy wax na the prophet Muhammad peace be upon him said yonente yàlla bu tedd bi wax ne ne every important word or matter that does not being with the remembrance of Allah is meant every important word nee na bépp baat bu am solo bépp baat bu am solo au matter wala muy mbir bépp baat wala mbir mu am solo that does not being with moo xam ne defuñ ko tàmbalee ko ci turu yàlla with the remembrance of Allah ci tudd turu yàlla ci fàttaliku yàlla is mind loolu day day day ñàkk barke voilà mbir mu dog lay doon moo xam ne du am barke du am continu continuation waaw maanaam mm, du am continuité euh, du wéy daal waaw kon loolu moo tax ñun jullit lépp loo xam ne dañ koy def dañ koy tàmbali ak bismillah bismillah bu ci arab ni lañ koy bindé bismillah mom la traduire ni bismillah kon lepp loy def ci sa diine wala lu sa diine manam bir moy def rek wala loy wax tambalé ko ak bismillah mo xam da ngay jang mo xam da ngay lek mo xam da ngay naan denga mo xam da ngay fay ab làmp wala dangay taal moo xam da dugg ci dara wala ngay génn nga wax bismillah voilà yooyu yëpp boo ñu toppee danañ ko jàngale incha allah lekk nuñ koy waxee naan nuñ koy waxee jàng nuñ koy waxee dugg nuñ koy waxee génn nuñ koy waxee taal nuñ koy waxee fay nuñ koy waxee yooyu yëpp danañ ko ñëw mais dañu tàmbali dañuy dañuy def leçon par leçon rek incha allah waaye nag li ñu ñor mooy li ñuy wax maanaam the meaning of the lesson voilà bi lan la jubloo jàngale mooy lu ñuy def dañ ko war a tàmbalee ak bismillah kon mu ne welcome to your programme dal leen jàmm ci seen programme how to learn English from your religion naka ngay jànge anglais ci sa religion why wi Muslims begin our things with bismillah mu ne ñun jullit ñi lu tax ñuy tàmbali suñuy mbir ak bismillah in the name of Allah loolu mooy bismillah tradition bi mooy li mu signifié mooy in the name of Allah en anglais dañuy wax ci turu yàlla in the name of Allah mooy bismillah ci anglais mu ne we do it because it's sunna dañ koy def parce que sunna la mooy bu ñuy tàmbali dara dañuy wax bismillah parce que sunna la yonent bi daf ko daan def and we seek the help of allah in blessings through the name of allah mu ne dañuy sàkku nimbalal yàlla ak barkeb yàlla ci tudd gi ñu tudd turu yàlla the prophet muhammad peace be upon him said nee na yonent yàlla bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne ne every important word or matter that does not being with the remembrance of Allah is maimed dégg nga nee na bépp mbir walla baat bu am solo boo xam ne euh, defuñ ko ak tur yàlla loola day ñàkk barke kon mën